dégg وسلم تسليما يالا taslima yàlla nga sëlmal ak sëlmal ci moom lii boo ko ñaar fukki yoon par bis insha allah bala am ñen fukki fan da nga gis lu yeme ci lu faj say soxla lu ubbi say bu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جولي دي سن بكو سن خريس التجاني دو مولين اندلات نيان قو أم صلو ورسك چي والو أكيبكو خامنة دانگا نك أي جفة جفة نك أي خط خط ci wàllu gu doon nag ci commerce tabaarakallaahu ci liggéey ci wut ay këyit bu dee ne da nga tumuranke nekk cim réew tabaarakallaahu ci projet yu të sotti ak yi mel ni moom saxool ñaan gi rek di ko def ñaar fukki yoon ci bis bi tabaarakallaahu bi nag buñ ko dee wax mooy boo jullee suba ba ba ngay julli fajar balaa fajara jot diggante bi foofi amee jot moo xam boo jullee ba noppi la wala sax euh, danga tànn benn waxtu rekk toog jàpp tey ci sa kurus def ko rawatina nag bu fekkoon nga julli ba noppi ndax dañu wax ne gannaaw julli gune ñaan guñu nangoo nga ca boo jullee ba sëlmal foofu la ñu gën a séentoo tabaarakallaahu nga def ko fa moo xam julli subala la wala tisbaar wala takkusaan wala timis wala gee nga toog rek def ko ñaar fukki yoon muy vingt fois inchaa allahu yàlla dana faj say mbir tabaarakallaahu balaa nga am ñeen fukki fan inchaa allah e, muy ñaan gu am solo goo xam ne bindal nañu leen ko tabaarakallaahu mu ngi noonu di feeñ ci écran bi moo di bismillahi arrahmani irrahim ya azima aljalaali ya badia alkamaali ya kathira alnawaali ya daaima alifdaali ya xasana alfiaali ya qaimu bila dawaali wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa بسم الله الرحمن الرحيم يا عظيم الجلال يا بديع الكمال يا كثير النوال يا دائم الإفضال يا حسن الفعال يا قائم بلا ذوال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما لموي فريموي يا عظيم الجلال yow yàlla mi di aji màgg ci ak màggaay yaa badial kamaali yow yàlla mi di aji yéeme ji ak mët sa mat gi dafa yéeme ndax danga mat ci wàll yépp mat nga ci melo mat ci tur mat ci jëmm yaa kathiran yi yow yàlla mi nga xamante ni say may dafa bari ba kenn mënu koo takk say taraanga ak say xéewal yaa daa'imal ifdaali yow yàlla mi di aji sax ji ngëneel ak i taraanga ak i xéewal yaa xasanal fiaali yow yàlla mi di aji rafet ji jëf yàlla lu baax lu rafet rekk lay def jëfam yépp dafa rafet du def lu bon doonte li mu def danga ko jàppee lu bon lu baax la yaa qaa'imu bila zawali yow yàlla mi taxawe sa say mbir tabaarakallaahu ne jonn te doo fi jóge mukk bu fi lépp jóge woon sa dara du arrêté li fi nekk itam doxalul sa dara ndax yow lépp ngi doxe ci sa namm-namm ak sa bëgg-bëgg ak sa choix kon nag li fi nekk muy asamaan ak suuf ak mbindeef yi fi nek ak malaaka yu doxaluñ sa dara yaa qaa'imu bi laa wa sallallahu yàlla nga julli yow yàlla ala sayidina ci suñu sang bi muhammadin te moo muhammad wa alihi yàlla nga julli ci ñoñom dégg nga wa sallim taslima yàlla nga sëlmal ak sëlmal ci moom lii boo ko ñaar fukki yoon par bis ان شاء الله بلا ام ينفكي فان da nga gis lu yéeme ci lu faj say soxla lu ubbi say bunti wërsëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa boutique biotique en partenariat avec Muslim je leen présente présenter une gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga éjaculation précoce moo sonal wala dañu am faiblesse sexuelle manam dañu néew katan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañu am problème azoospermie manam sen man dafa woyof c'est dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ ci pommade bu hyper efficace am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax loolu ci jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser am aussi un traitement hyper efficace un traitement définitif contre ndoxum City, wala sax ñi n'y a jamais seen yaram yi fay xasan wala sax euh, mu jural leen une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam pratiquement ndoxum City bi mon koy causé am un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace nañ aussi un traitement hyper efficace contre hémorroïde interne ak hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt dafay waral aussi néew kattan bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la dafay indi perturbation des règles mën na la tere am doom am nañ aussi entrainement traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé euh, bi nga xam ne day waral constipation ak euh, biir buy kurkuri lépp loo ci mën a am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïde bi daf koy saafara e cent pour cent bio cent pour cent naturel sans effet secondaire képp ku ci bëgg mën nga ñu si contacter ci 77 982 98 82 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوت